Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous la lecture du communiqué numéro 55 de ce samedi 25 avril 2020. Le ministère de la Santé de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs Il s'agit de 63 contacts suivis par nos services, 6 cas issus de la transmission communautaire, dont un à Koloban, un à Mbao, un aux Parcelles Assainies, un à Niaïtioker, un à mbake et un à Nioro. 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à signaler dans nos de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 614 cas ont été déclarés positifs, dont 276 guéris 7 décédés, un évacué est donc 330 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof ma jàngal leen communiqué bu ministère de la Santé et de l'Action sociale tey ci samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti test yi ñu def juróom benn fukk ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñetti cas contact juróom benn cas yoo xam ne ci transmission communautaire bi lañuy jóge benn ci Colobane benn ci Mbao benn ci parcelle Assainies benn ci Niayes Thioker benn ci Mbacké ak benn ci Nioro ci malade yi ñu hospitalisé fukk ñeent wër nañu ci dinañu génn ci waxtu yi ci kanam ci suñu structure yi nga xam ne foofu la ñuy def malade yi nekk réanimation benn cas grave amul ci structure yooyu yeneen malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko bés bu njëkk bi Sénégal amee benn ka wàññi nañu juróom benn téeméer ak fukk ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañu ci juróom-ñaar ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko ci dëkkam mu des ci suñu structure yi ñu leen di fej ñetti téeméer ak fanweeri malaat yoo xam ne ñu ngi leen hospitalisé ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne ñoom la ñu joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam